ma jël benn misaal bu ndaw. Mhm. ñi am ku ñu jël fal ko nangam mais bi ñu koy fal nangam train de vie am nii la woon mais tey bi ñu ko falee bi at mi dilsee wala bi bu mu demee ay weer gis nañ ne ni muy dundee tey ak ni mu doon dundee bokkul ñu ñaaw njortu ne dafa def malversation wala dafa am lu mu lu mu lu mu a jël. Mhm. dañ dafay teg dil wala dafay dóor. kooku jàpp naa ne bu waa penc mi dajaloo ne kii kat dañ ko bëgg a saytu maanaam dañ ko bëgg auditer ñaaw njortu bu amul woon doo dégg mën nañ jàpp ne benn bëtu ñaaw njort la bu état am ngir lan ndax dafa am ay yu mu dénk loo xam ne askan wi ñoo ko moom ñu jàpp ne bu buñ la dénkee yëfu ñëpp te kenn du la saytu mën nga ci def jëfandiku bu bokkul liñ soxla moo tax ñu am benn bëtu ñaw njort bu of OFNAC boo xam ne mooy ñëw ne alima liñ la joxoon nangam la loo ci def fan la jaal marché yi noo ko joxee ñi saytu loolu ba xam ne fi nga koy jaarale foofu la pour man loolu du am benn jafe-jafe mais nag nga seen alima moom la waaw da ngay supposé da dégg da nga naan euh, le présumé euh, meurtrier maa ngi dégg nga koy wax sànq. voilà da ngay supposé kon loolu mënul ñàkk ci ak dund. ndax nag euh, alxuraan bu fekkoonte ne ñaaw njortu baaxul alxuraan daf koy tere waaye daf ne inna baada zanni ismun kon bu waxee baada mooy yenn njort yi bàkkaar la mooy nga gis nit ki rek daal di koy defal jugement bu catégorique amuloo denn loo ko may. loolu pour man bu ñu ko bëggee yemale si séeréer dafay gàtt mais nañ ko yóbbu ci penc mi ñëpp alima ci ba ci ba ci ay euh, collègue de travail fu ñuy liggéeyee mhm. euh, mën naa ñaaw njott ci Fatou Abdou mën naa ñaaw njott ci Moussa voilà mën nga xëy Fatou Abdou mën na ñëw mhm. sol benn jëf neeram boo xam ne macha allah bu subaa mu ñëw sol benn brodé benn brodé autorise bu gannaaw subaa mu ñëw indi beneen yére hmm. nga ne Fatou Abdou mii kat ñenn maanaam invité dal da leen di dóor da leen di laaj xaalis da leen di nangam loolu ñaaw njortu la hmm. pourtant Fatou Abdou am na benn frère am bu tudd benn ma ngay dem fële am na benn càmminam bu nekk feneen ñooñu noonu di jël li ñuy def si moom ak ay nitam yu mu am ak moom li muy liggéey ngir boppam ndax doomu aadama nit ku nekk da ngay euh, booy dem di fekk si di fekki nit ñi am na noo xam ne war nga ko mel am na noo war a par rapport loolu kon loolu dafa am lu mu lay jaral dafa am lu muy jar dafay am njëg euh, yow mi nga xam ne ne yéen a bokk di liggéey xëy na mën na am amuloo boobu opportunité wala amuloo boobu sens nga ñaaw njort ci loolu ba yow loolu mën na jur sa diggante yow ba tug piiraange te fiiraange fu mu am bu yàggee soxor juddu te soxor na xar la moo xam ne lu baax lañ koy xonte mais yan na ñaaw njort est-ce que du soxor day day jur day jur soxor parce que bu fekkente ne da ngaa jàpp ne par exemple sama daraa ji ni mu rafetee nii nga xool ma daal ne waa oustaz daraam bi lu fu mu ko jëlee ah moom daraam ji nàngam mujj gi bu bu ma faat Abdou waxee ne ma sa daraa gi rafet na nga ciipatu loolu ciipatu boobu dem ba am lu muy jël si sa xol hmm. te xol dafa nekk gétt goo xam ne hmm. fa la ñuy yeew xar ya bu dee xar mu baax la dafay yiwe waaye bu dee xar mu bon la mooy soxor te soxor jëf ju baax lay dundee moo tax ngay gis ab julli di julli di gën a bon di woor di gën a bon parce que dafa am ci géttu xolam mm-hmm. am xar mu soxor mu fa yeew mm-hmm. yonent moo ne mooy tunu ko leen ndax soxor kat dafay lekk jëf ju baax comme ni safara di lekkee matt mu wow mm-hmm. léegi nag yow nga ne jullit nga waaye yéene woon nit benn mérite bu mu am nga teg ko ci ñaaw njort moo tax ñaaw njortu dafa nekk buntu bàkkaar boo xam ne war nañ koo mën a moytu ndax ne gis nga li fi doon waxtaane sànq maa ngi jéggulu ci njëlbeenu wax ga mooy bi fi professeur nekkee man dama jàpp ne lépp buñ ko jelloo woon si rafetal suñuy diggante sellal bàyyante xel joxante cër sànq maa ngi dégg ngay tudd Serigne Abdoulaye Thiaw Laye nga xam ne boo duggee si këram kilifa diine yi nekk ci réew mi ku nekk am na am na fa turandoo wala sa doom am na fa turandoo wala sët am na fa turandoo loolu lan moo waral loolu parce que ñaawul njortu seen tir hmm. mooy li Serigne Cheikh Tidiane si almaktum daan wax ne mag ñi dañ daan seexale xam-xam yi waaye du ñu xeexale xam-xam yi seexale yi googu nag moom mooy waral tey man ak Alima Ndione ñu bokk fu ñuy liggéey ma hmm. yéene ko lépp lu ma am hmm. yéene ko lépp lu ma mel daf may noppal sax même bu doon def moom lu jaaduwul man dama jàpp ne nit ki li muy def te te jagul munul munul munul wecce yow soxor wala boog ñaaw njortu wala jikko bu ñaaw muy jur si yow ndax xalaat bu ñaaw booy xalaat ci moom munu ko wecce parce que jaru ko kon loolu xëy lu mat a bàyyi xel la soxna soxna Alima am na solo Pa Moussa euh, d'accord nga ni euh, ñaaw njortu baax na wala baaxul fan la baax ak fan la bon hmm. euh, Alima maa ngi lay nuyuwaat ah, di. père de la teel a nga ñëw fi nga see cër. non napp ma lan lan ragal père. non non. <laughs> ragal nga père da nga ne salaamaaleykum rek père napp la. père nu napp damay rejoindre euh, Benoît. Ah. parce que dëkk bi boo xoolee li ka tas. Ah. d' abord li tas ménage yi néegu sëy yi. ki dafa ragal jabar. ñaaw non non du ragal. <laughs> dafa ragal jabar. <laughs> parfois non non. ragal seen jabar. moom sax dafa ragal jabar. barke borom Touba Mbacke am na waxin boo xam ne suñ ko ne waxee yow wax naa fii ak Benoît boobu bu ma waxee pare boobu Benoît mu nga États-Unis affaire bi tas rek. Eh, nanga laa cukalaa avec mu daw ak ma songu ma ba par téléphone eh yaa ngi kii yëngal sama kër dégg nga lan moo tax nga kan man ko yow barke borom Tuubaa nga woo ma États-Unis ne ma lii ma wax la yow ma <laughs> ma ne la yow soo gisee ngay wax man li nga nekk États-Unis la mais soo taxoon sama kanam wax loolu keroog <laughs> barke borom Tuubaa kon loo koy def waaye woo ma téléphone eh ma ne ko ah c'est parce que ndaw tàng yu xum ne mi ngi tàng kay. dafay yow astafurlah oh, mi ngi tàng. non mais per per per per dëgg nga ay ragal noonu ndaw si noonu ragal. ñuy alimandoor kenn ñemewu ci. ñu reer ba pare teg ataayu ba pare xiim lëbal xiim deuxième ñu xam ne sàngu tëdd moo des histoire am nga xuloo ñemewuñ ko amuñu fi doowu. waaw loolu la barke borom Tuubaa amul papa na xuloo moom jarul ko mais yow loolu ban njëriñ la ci kër waat loolooy sa ñaar loolooy sa ñaar dama ne xamuloo ko léegi xuloo fu nekk lay jógee nga ne yow yaa tal xuloo ñu taluñu xuloo da nga koo ñemewut laa non dañ ko talul da nga da ngaa dëgërul da nga ko ñemewut ragal nga waaw jërëjëf mais taluñu ko ay ragal nanu ñii ay Pape mos ge eh, déedéet père bu mos boole ah, ñemewuñu <laughs> eh, Alima pour man oustaz sax war na ko mën a euh, kii de ragal sa jabar dafa dara new si de dafa baax dafa baax parce que ragal bi non ragal bi ñu ñoo gis ragal mais boo nee ragal respect bi àdduna eh. ragal bi sax man damay on sous-entend respect bi ragal sa jabar dara new ci ragal sa jabar ragal ragal ragal sa jabar. da lay avancer loo ci àdduna yéen kii nit la. Eh, eh, eh, ragal dafa am solo. daf lay ah. avancer loo si àdduna. yow ustaas la boo xam ne yow yow man waxuma ak yow. ah waaw waaw man amul ustaas wala dara de man li may wax fii laa koy teg man dama ne démb ak barki démb kilifa ya yilifoon seen kër. yor ñeenti soxna. benn néeg. père ah, a nga xamul ragal bi ñuy wax. oustaz su demee tey a taxaw. waaw ah, kay ah. père. xamoo ragal bi ñuy wax père ci wolof feebar. feebar dañ koy lan. faj mu ne lan ma ngi dañ naan feebar bi sa feebar bi ragal ko lan mooy ragal ko. lan mooy ragal ko feebar bi ko mooy lan mooy lan non mais jarak kay doon kay ragal. voilà non ragal baaxul ah non kay ragal waaw jarak moom soo ko yoree papa kon kay ragal baax na nag déedéet moom sa Euh, Oustaz damay dégg. ba jël sa nopp taatan ko ci jigéen. lu mu la sant moom la ragal yooyu waxuñu ragal yooyu. loolu laa la wax waaw xamoo fi ñuy waxee. non bu loolu dafa mënul uh-huh. ñàkk Oustaz dañu naan dañuy olof day faral di wax naan loo rus ak loo ragal ñooyam peut-être nit mun nga rus sa jabar. jox ko cër boobu noonu. xam nga ñu ne. <laughs> jox ko cër non jox ko cër. respecté ko respecté ko ñu ne daf ko ragal pour ñëw si si si thème bi pour ñëw si thème bi li euh, Benoît wax dama koy rejoindre. boo xoolee kër yi maanaam kër yi néegu sëy famille yi. bërëbu liggéeyukaay bërëbu liggéeyukaay koñ bi. léegi mbedd bi sax moo si des te commencé na boo xoolee euh, source bi yëpp ñaaw njot moo moo moo indi différent yi. Mm-hmm. na fu mu baax de. non man mosuma gis ñaaw njot mosul mosuñ ko rafetal. rafetal ah mosul nekk ñaaw njot ñaaw njot peut-être dañuy Moussa laa dégg mu ne ñaaw njort man foofu damay indi ne peut-être appellation bi moo moo moo. la nit ñi desee comprendre. man dama naa ñaaw njort booy. par exemple maa ngi ñibbi nii après maa ngi ñëw léegi nii dem ñibbi euh, damaa na soxna si sax ah, balaa père di wax dama ko ragal. léegi su ma ñëwee ba ci benn koñ. koñ bi lëndëm na wala ma ne dinaa fi taseeg saay-saay wala dara eh, eh, foofu damay ñëw ñaw eh, njort foofu méfiance la la la ñëwee mais pas ay ñëw de pour ñaaw njort ah. tey ñëw naa toog fii ñu ne ma bul toog nii par exemple kaa toog fii Fatou Abdou moo toogal foofu mhm. foofu su ma ñaawoon njort est-ce que naa toog fii mhm. dama naan sax est-ce que miine wuñ ko balaa may ñëw mhm. bureau tey war naa fa ñëw fekk fa benn mouchoir par exemple bala dara ñu teg ko si clavier bi wala am ku def utiliser te bàyyi ko foofu ma ñëw am na nu muy demee sama xel bu ñaawee njort damay xalaat loo xam ne amaan na sax dootuma fa toogati. dëgg la looloo tax nit ñi léegi loolu moo def ba négativiser. Paris négatif merci xel yi léegi dañ ko formaté ba loo gis rek da ngay. négatif rek lu négatif rek ngay xalaat. kanta hmm. ñaw njort bi nag léegi tey mun nga ñëw ñu ne la ah nit da ngay méfiant si ñi ngay kii koy amal confiance. Hmm. koy wax say problème noonu yëpp du ñaaw njort ñaaw njort la. ñaaw njort ah, uh-huh. eh, borom përi. yow moom d'accord nga ci ñaaw la dugub takk nga naan bopp la am ndox ki nga naan. wuyu ma fàttali ak yow mi yow yaa fi dëkk ngëli yow yaa fi dëkk ngëli nag waaw ah tamit non su doon day gën ndaw da ndaw Fatam fi mu dëkk dafa bëri ah waaw mi ngi dëkk Përi Njaay ak ngëli xuma ak pextaan ah xam naa ne daal bàjjenam ma nga ca suuf rand ga ca loolu leer la moom waaw waaw rand ga nga eh, xam e e ah. ne soo taxawee gardien bi seen ni nga di waaw bàddina ma nga fa mooy tëgg waaw ki mbokkum biram kuma la biram kuma ak Babacar kuma biram kuma event bii ci Colobane moom la dëgg la Fatou Abdou ndax fu la dugub takk nga mar déedéet ndax ku la nekkaay nga ñëw déedéet ndax fu ndax ku la joxum ndox nga naan déedéet ah doo njot waajal tam xarit bi ñu nekk nii Fatou Abdou est-ce que fu ne lay lekkee cere ah waaw mais mais xam nga bokk xam xam nga man sam papa bugguma di bugguma di bañ a ànd ci ci li muy wax d'accord naa ci mais man dama dama dama am beneen gis-gis parce que déjà hmm. euh, dafa péjoratif ñaaw parce que foo déggee ñaaw rek sa péjoratif mhm. damay dégg nag waa maire yi di wax même man damay dégg sama yaay mu naan soo amee parental da ñaaw njort maanaam booy dugg ci waañ bi na ñaaw njortu mu topp la ba mën a jël dara ci waañ bi lu ko mën a lakk waaw loolu damay dégg mag ñi di ko wax mhm. lakk fa moom tu tànk bi mhm. wala wala wala mu daanu donc boo yoree tout tànk da nga da ngay ñaaw njortu euh, dañu koy wax parce que euh, man euh, ci ci famille famille Kajoor ak Njàmbur mm. damay dégg kàddu yooyu mm. mais xam nga société bi fi mu toll nii mm. Benoît dafa wax dafa dafa wax loo xam ne c'est très important société bi dañu toll foo xamante ne nit ñi dañu ñaaw njortante ci seen ci seen i seen i borom c'est-à-dire bokkul ak ñaaw njort bi nga xam ne man jàpp naa ne père moom lay wax tey parce que tubaab sax daf lay wax ne la confiance n'exclut pas le contrôle cest loolu ah. sax war nga yenn saa yi di xool ak di foog ah. mais ñaaw njott beneen bi nga xam ne man tout le temps dama dama dama jàpp ne dafa yàq société bi mooy ah. alimatay boo doon dox fi léegi faqastalu nga gis kenn dab la léegi ne la faqastalo bi est na mhm. cest à que euh, cette société bi nga xam ne dañu ko dugal dañ ci dugal mhm. mbirum est-ce que wóor na mhm. est-ce que diw mii nga waxal du moom boo feebaree déjà li ngay njëkk a jàpp mooy ñaaw njort boobu est-ce que du nit moom a ko teg société boo xamante ne tey euh, su soo amee wujju li ngay njëkk jàpp mooy est-ce que du dañu dañu ma liggéey société boo xamante ne boo xëyee ñu dàq la sa poste li ngay njëkk jàpp mooy nit moom a fa jëlee société boo xamante ne tey bu alima xëyee nekk directrice des générales ñu directrice général ñu jële fa kenn li li li ay mbokkam di njëkk xalaat ko nu fa jëlee mooy alima mi ñu fa teg moom moo ko def dara ba mu wutu ko mhm. c'est-à-dire que ah. cette société boo xamante ne dañoo jàpp ne ñaaw njort boobu man man c'est ce que que rafet njort dafa bokk ci gëm yàlla mhm. gëm ah. yàlla mooy bu nattu ñëwee nga xamante ne lii nattu la nga gëm ko yàlla bañ ci boole ñaaw njort boo xamante ne mhm. fi mu lay jëmale euh, du la jëmale fenn fu dul créer la ay noon sa à dire que créer la ay noon mooy doo am confiance ci kenn tey bu alima café kenn sax wala mu retaan ak kenn nga mer wala tey wala yow la wala mm. c'est-à-dire que day dama dem ba sa vie du paisible mm-hmm. doo xappi te loolu daf lay yàqal sa dund mm. boobu dama koy dénoncer mais fi père waxee ñaaw njortu euh, ah. ci société bi parce que tey mm-hmm. euh, euh, ñi ngi wax mbirum fétichisme mm-hmm. tey bu lobee njaay ñaawoon njot du dem foofu nga xamante tey la mu fa doon dem muy muy koo xamante ne dafay ñaan tey la mu ko jural mooy bakkanam bu mm-hmm. euh, tey tout tànk boobu nga xam ne ay waajuram tey ñàkk nañu ko tey te mu nekk ca Ziguinchor ay mm-hmm. waajuram bu ñu ñaawoon jot xool ci waajoo ji gis kook ay doxinam mm-hmm. gis kook ay mbiram bu ñu ñaawoon jot kon kenn du rey seen ah, doom c'est-à-dire que euh, ah, dafa nekk loo xamante ne am na bu côté bu positif am na côté bu négatif toujours kaw kaw ak ñi uh-huh. par rapport ak société bi euh, peut-être relations humaines yi ni ko ñaaw njort parfois di yàqee hmm. yenn saay nag am na foo xamante ne mën nga fa ñaaw njort parce que li ngay gis nag ah. ne bu ma ñaawoon njort amaana lii du ñëw keroog ba nga taxawee ne ma bugaan ma ne ah mun naa ah, ma ne ko nga rek yow mii yow yaa def keroog journal la laa taxaw Fatou Abdou def journal ba pare maa gis bugaan ak Idrissa Seck ca caaroy géej ñu ànd ci oto ah barke borom Touba. yow damaa ci waaw. yow lan yow. su ma ko gisul waaye yow tamit man du ma ragal na yow tu ragalu ma bugaan dama ne yow bugaan ak Idrissa Seck. léegi da nga si jot. da nga ne su njottam doon sori. waaw. du ànd ak Idi. néew ma du ànd ak Idi. waaye kon ak lu mu mën a waxtaane ak moom waxtaan ba du sori moo tax ne ko ndax jëwuloo wala Fatou Abdou waxuma ko loolu. Ah, waaw man de seetaan naa yaakaar ne damaa ragal bugaan. non waaye yow man waxuma loolu de. ma tax mu di wax loolu. naan ma kii parce que mburu mi ni mu nekkee ci sow mi nga doon ragal. non yow ni sow mi fekkee mburu mi nga def plateau. waaw li ma li ma lay wax xam na ko mais Alima.